bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inaa nasaluka xayra ma fi haadal yowmi wa xayra ma baad wa naudu bika min sharri ma fi haadal yowmi wa sharri ma baad wa naudu bika min adaabin fi lxabri wa adaabin fi naar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar yi mu defal fajar ko jot waxtu bi dellu su na ci kàttanu sunu borom tabaaraka taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall gannaaw ba ñu sant Yàlla subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara niñ koy baaxu ci defee fajaru dimaas mooy ànd ak yéen ci min kunoo si sunna min si sunna ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko tuddee la jóge ca ndàmb la la jóge ca trésor ba bu doon langaasu ñoom professeur ji bi min ko sunna di ay jataay yoo xam ne dimaas lañ koy am dellu ci sunna si yonente ba sallallahu alayhi wa sallam jël fa dara indi ci pénc mi nu bokk jariñoo waaw nu bokk jëriñante ndax moom it bi mu fi ñëwee yóbbal bu ne jàngale na ko sallallahu alayhi yóbbal bu ne jàngale na ko suñu jataay bi weesu dañoo nekkoon ci asalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa julli ci yonent bi walla nga ne ñaanal yonent bi andi ci yéen ci andi woon yépp tabaarakallahu buñ ko dégloo ay yoon dañu indi bu bees kon bu beneen a ngi nii suñu bind tey mi ngi jëm ci li ñu tuddee birrul waalidayni birrul waalidayni mooy baax ci sa ñaari wajur walla baax ci ñaari wajur ñaari waajur kenn ki mooy baay kenn ki mooy yaay kenn ki mooy baay kenn ki mooy yaay ñaari nit lañ bi yàlla nammee bind la dafa sabab ñaar jur la kenn ki du ko góor ku tudd baay kenn ki du jigéen ki di ko tudd yaay borom bi am àq am ci nit wax ne ko na mat boo ca noppee nag mun naa mun a ko tegal ma ci ñaar ñi nga xam ne bi ma la fii indi ci ñoom laa leen laa la jaarale waaw ba noppee ci li ma li may defal boo wàccee tool jaaral seen tool bu doon ci Saalum nu leen ko waxe boo wàccee seen tool jaaral seen tool waaw yàlla toolam mooy al ibaada toolu ñaari wajur mooy al ihsaan ku wàcce tool yàlla na dem toolu ñaari wajuram noonu la ko alxuraan jàngale ci barab yu bare bay ndax bëgg nit ki fay naar ba xorom ñaari wajur foofu loolu mooy seen wàccuwaay ba demee ci alquran da ngay fekk borom bi subhaanahu wa taala di wax wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a waaw jaamu leen yàlla jaamu gu dul jaxasoog jaamu leneen leen yàlla jaamu goo xam ne du laq du jaxasoog yàlla dong yàlla képp yàlla kot mu ne moom ngeen di jaamu al ibaada ismun jaamiun li kulli maa yuhibbuhu llahu wa yarda min qawlin aw amal noonu la ko borom téere ba doon yaxale doon ko waxe waaw mooy al ibaada mooy tur woo xam ne mooy lépp lu yàlla gërëm mu xam jëf la mu xam wax la tëral ko ci ay norme nag jox ko salawaatullahi wasalaamu alayhi mu def ko ci alxuraan mu ne lii mooy jàmm ndax suñ ko defut noonu lu waay def rek da koy tudde ak jaamu yàlla <coughs> waaw ne su fekkoon ne këy du waa yor ba dem ci bitig ba jënd pëcc xoo googu kenn mësu koo gis waaye dafa am ci suñ këyit yi këyit wu ñu tuddee cinq cent këyit wu ñu tuddee mille ak wu ñu tuddee deux mille noonu lañ ko toppee ba ngay am këyit wu tudd dix mille ñu ne fi la xaalis bi am kayit yooyu la tax mu wuteeg suñ kayit yi mooy nañ ko liggéeyee ak signature ya ca nekk ba ñun ñëpp ñu dëppoon ni lii ab 500 la boo ko yóbbu ci bitig ba mën caa jënd dara ibaada yi noonu la mel borom bi taala moo ko rëdd ñu defar ko am ay signature yoo xam ne ku koy jaamu nun nga koy defee boo ko defee neneen yàgg ko jël euh, journal Sud Quotidien dagg ko ba mu toll niw dix mille nga dem ci bitig ba ne jàllo am jaay ma boo yemee ci boo yemee ci jaayuma la nga sant ngoog kon jaamu yàlla lañ koy def te duñ ca boole dara duñ ca boole lenn duñ ca boole kenn ruqala su naqaree mucc nag waaw ruqala su naqaree mucc ndax bokkaale moo sew ba naqaree gis ki doon jàngale nam ko jàngalee ku ko dégg xam ne bokkaale kon beneen affaire la daf ne mi ngi mel ni courant coupé xorondoom di dox ci kaw xeer wu ñuul courant coupé korondom di dox ci kaw xeer wu ñuul xam nga guddi gi doy na sëkk lëndamaay coupure bi ñëw tege ca ñuulaayu xeer wi tege ca ñett yooyu bu bu àndee gis xorondom ngay dox ca kaw xeer wa xam naa ku yàlla bàyyixiwut lool gis ko dana la jafe bokkaale nag nun la mel dafa sew lool lëndëm lool dugg ca yomb lool moo tax booy deme sam xel ci teg si ibaadaat yi dugg ca daf lay yomb waaw booy booy jëfe sam xel dugg ca daf lay yomb la Sëriñ Abbas waxoon boroom xam-xam ba waaw toog ak moom mu ne ngi ñaan yàlla subhaanahu mu nangul ñu sunu jaamu yàlla mu ne ñi ngi ñaan yàlla mu nangul ñu sunu jaamu yàlla Ibn Abbas ne ko li ngay li ngeen di bañ bañ bañ bokkaale foofu li nga fa wax ñaari yàlla la waxtaan wu xóot lool waaw ñu ngi ñaan yàlla mu nangul nu sunu jaamu yàlla mu ne ko lu tax nga wax ñaari yàlla foofu waxin la nag boo xam ne seen ñoom boroom xam-xam ñoo ci doon xóotu waaye man li ma bëgg a wax rek mooy euh, shirk muy bokkaale ki ko doon jàngale daf nu ko jàngale noo xam ne li muy tekki mooy lu naqaree gis la nekk ca te yëg te yëgoo ni ci nga nekk walla wax ca te yëgoo ne ca nga wax walla jëf ca te yëgoo ne ca nga jëf moo tax mu ne mi ngi mel ni lën mi ngi mel ni guddi courant coupé euh, xorondom di dox ci kaw aw xeer wu ñuul waaw loolu mooy ibaada borom bi teg ci wabil walidayni ihsaana wabil walidayni ihsaana al ihsaan mooy sa digganteeg nit ñi sa digganteeg yàlla mooy ibaada sa digganteeg nit ñi mooy xidma sa digganteeg yàlla mooy ibaada sa digganteeg nit ñi mooy xidma bi ngay xidmaal nit ñi nag tàmbaleel ci baay ak yaay waaw loo defati mu saf xorom boo fi jéggee yaay ak baay di def xidma Eh, ibaada ga mënees na koo ñàkk nangu dangay xetmaal doomu aadama yépp waaye jiital ca ndey ak baay booy ibaada nag moom moom yàlla képp kot dong na ca yem waaw nun la ko waxee subhaanahu wa waxaat na ci alquran wassayna al insaana bi waalidayhi xusna dénk nañ nit njëkk ci ñaari waajuram ku ci nekk nay def njëkk ci ndey ak baay ndax ndey baay ñoo defoon njëkk démb ba sag nekk fi jag waaw junjoon naa ko ci wenn waxtaan bu ndey ak baay doon fayu li nga nàmp ci meew jóge ci weenu yaay ñaari at mbaa ko jege bët bu set juróomi yoon mbaa ko ëpp soo calculé woon loolu xaalis la soo calculé woon loolu xaalis la boot gi la yaay di boot di déplace déplacé woog yow bu doon taksi nga koy jël xaalis la tëdd ngay tëdd ci néeg bi bu doon location nga koy jël xaalis la yooyu yépp ay xaalis la plus xarum tudduma ceeb bi ngénte ya ak yu nu deme lépp bu ko nit boolee dana xam ne fay waajur yombut ma tax boo doon liggéey di ko joxit fayoo ko fayoo ko loolu am na solo lool am misaal la ndax bi fi feebar bi ñëwee yàlla na fi jóg muy corona ñu toll ci soxla oxygène xam ngeen ni ñu ko doon jaaye bu fekkoon bu ñu juddoo ba léegi oxygène bu ñu fi noy yàlla facturé nu ko boo moytu luñ liggéey ca lay yem luñ liggéey ca lay yem ba tax kon bu la yàlla joxe ñaari wajur ñu sonn ci yow yenn coono yi ba nga toll ni nga toll ba tekki dara walla ba am dara laa bëgg a wax war nga ne la seetlu Euh, gestu seral seen xol yooyee waaw loolu lu jar a bàyyi xel la tuul lu war a am la ñu ngi jële ci abu abdurahman abdullah ibn masudin radiallahu anhu mu ne saaltu nabiya sallallahu alayhi wa sallam ayul amali ahabu ila llahi taala qaala asalaatu ala waqtiha Abdullah ibn Mas'ud kenn la ca saxaaba ya kenn la ci jàmbaar ya kenn la ca xuraa ya jànkati alxuraan ya moom kenn la ci ñoom fóore la woon am kaang la woon bokkoon ca saxaaba ya daan ànd ak sallallahu alayhi wa sallam daa am bis ñu toog question réponse mu laaj yonent bi laaj bi ñuy bëgg a wax daf na ko jëf yi jan jëfa ci gënal yàlla jëf yi yi ñuy def yépp jan jëfa ci gënal yàlla ndax bi yàlla ne nañ ko jaamu nañ ko jaamu moom képp dañ ko boole bokkaaleeg dara daf na ko jëf yi ban jëfa ci gënal yàlla waaw laaj la bu rëy boo xam bi laajaale nanu ko laajaaleel leen ko laajal ko jullit yépp la tàmbalee ca ñoom ba ba addunay tukki laaj bi seenub laaj la ñu laaj ko seenub sëriñ mu tontu leen ca tontu loo xam ne mën nga ca téere ya ba yawmal xiyaamati mu yaa rasulallah ayul amali ahab ila allahi taala jëf yi jan jëf ci gënal yàlla waaw mu ne ko assalaatu ala waqtiha jëf ci jëf yi mooy julli ci waxtu hmm? jëf ji gënal yàlla ci jëf yi mooy julli ci waxtu waaw julli ci waxtu mooy li gënal yàlla ci jëf yi loolu la ko la loolu la ko tontu tontu nañu ko ñun ñëpp it tontu ñëpp la concerne moo tax boroom xam-xam yi daan sonne waxtu ndax li nga xam ne moo gënal yàlla ci jëf yi xam waxtu wi nga koy def di ko ca jooxe daf lay may bëgg googu yàlla bëgg loolu nga am ko di ko def te yàlla bëgg la nga bëgg ko ngay jëf-jëf yi ci waxtu wa nga xam ne ca lañ ko bëggee loolu day yokk bëgg gi am sa digganteeg moom assalaatu ala waqtiha hmm? waaw waaw bu dee jullit suba fexeel ba def ko ci waxtu wa muxtaar ak gën tisbaar takkusaan timis gee juróomi julli julli gu ci nekk def ko ca moxtaar ma moo gën moxtaar mooy première heure daruri mooy heure ko am ngànt boo julliwul ci moxtaar julloo julliwoo ci daruri yi nag boo julleetee dangaa fay waaw boo julleetee dangaa fay loolu loolu la loolu la alayhi salaam tontu sahabaam bi Abdullahi ibn Mas'ud abu abdurahman ayul amali ahabu ilallah mu ne ko assalaatu ala waqtiha waaw noo koy léeg-léeg mu ne cim xew dégg ñu nodd wala waxtu jot wala mu seen ñu julli nogay ni mu tàggaloo musóor gi bi yoon daf koo rëcc comme moom munta musóoru mu musóoru rek mu far jekk <laughs> bu ko tasee du ko mënaat nogay sàmm musóoram googu moo ko gënal julli-julli gi te yàlla julli-julli gi moo gënal moo ko gënal jekk-jekk lu musóorug nogay loolu lu bari lay dal jigéen lay léeg maquillage bi daf lay gënal njàpp li moo tax nga dégg alwudu indal makaari waaw maanaam daal léeg-léeg sañse bi sañse bi bu dee ku góor léeg-léeg euh, pili bi nga xam ne moo nekk ci tubëj ji su jullee su su sukkee sukkaat pili bi day damm moom tamit sàmm pilib pantalon boobu jaral na ko ko a bëgg wax rek ne lii yonent bi jàngale salawaatullahi salaamu alayhi jar naa bàyyi xel asalaatu ala waxtiha eh, saxaaba ba abdurahman wala abu abdurahman abdullah ibn masud daal di koy laajaat ab laaj ne ko thumma ayu ginnaaw julli ca waxtu wa moo gënal yàlla ci jëf yi lu ca tege mu ne ko birrul waalidayni baax ci sa ñaari waajur ah, waaw moo tax loolu yonent bi du am contradiction ak alxuraan wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaah wa bil waalidayni moo ca tege waaw wa bil waalidayni moo ca tege wa'budullaaha wa laa tushriku moo ca tege moo tax fii ayul amali ahabu ilallah mu ne ko assalaatu ala waxtiha mu ne ko thumma ayu lu ca tege mu ne ko birrul walidayni baax ci sa ñaari wajur baax ci sa ñaari wajur ndey ak baay nga baax ci ñoom hmm? waaw waaw jox leen cër fonk leen taxawu leen toppatoo leen bu nu màggatandoo problème am na bu kenn ki njëkkee màggat problème am na ndax dëkk ak màggat ñépp mënuñu ko dëkk ak màggat ñépp mënuñu ko ku yàlla baaxe ba nga man ko sant ko ku yàlla baaxe ba nga mën a dëkk ak màggat sant ko ndax borom bi mooy mooy jàngale nee na màggat tonton teeg moom dafa yomb waaye yow fexeel ba bul wax sag màggat uf waaw bul wax sag màggat maanaam sa yaay mbaa sa papa bu ci wax kenn uf kon biirul wàll day ni baax ci sa ñaari wàjjur bu ñu xiif bu ñu rafle bu ñu mar bu ñu tëdd biti buñ dégg tontu lu ñagas buñ dégg tontu lu ñagas maanaam bi jaamu yàlla weesoo rek xoolal ni yàlla sësalee rafetal ci ñaari waajur xoolal ni mu ko sësalee alayhi salaatu salaam moom tam bi mu koy jàngale xoolal ni mu ko sësalee nga noppi ci lii rek dugg ci lële ni ma ko waxoon sànq wàcce ci tool bi euh, na lu ci tool bi waaw jaar fa wàcc lu am solo la kon julli ci waxtu wa moo gën ci jëf yi baax sa ñaari waajur moo ca tege waaw kon waajur am na wàccuwaay lool am na wàccuwaay bu sa ndomb tànk tax nga xeeb bu sa tolluwaay tax nga xeeb waaw bu sa am am tax nga xeeb déedéet nekk ci rek yaag moom di nab nabi rawatina bu màggatee waaw ah saxaaba ba abdullahi ibn mas'ud kontina laaj ba ne ko summa ayyu lu ko ñetteel mu ne ko aljihaadu fi kër kër yi ci lu tasaare yoonu yàlla wi kër-këri ci lu yokk diine ji kër-këri ci lu yokk defar bokk gi kër-këri ci lu dindi xajam ci biir bokk gi aljihaadu fi kër-këri ba jirim yi jirim yi seenu jaaxle dañ kër-këri ba way tënj yi nga xam ne seen boroom kër génn àdduna seenu jaaxle dañ kër-këri ba mag ñi retraité am luñ jàpp kër-këri ba kër-këri ba al jihaadu fi sabilillah waaw kër-këri ba ñoo ñépp ku ci nekk am loo jàpp kër-këri ba penc mi gën fee jag kër-këri ba njàng mi gën a jàkk waaw kër-këri ba paj mi gën a jag kër-këri ba suñu rapport sociaux yi gën a jag loolu lépp boo ko boole mooy aljihaadu fi sabilillah waaw loolu boo ko boole lépp mooy aljihaadu fi sabilillah maa ngi ci min kunoo si sunna di seen jataay bi ngeen di am dimanche bu jot ci waxtu bi bismillahi tabaaraka wa taala alayhi salaatu salaam ruxma anf rajulin wala ruxma anf ruxma anf summa ruxma anf man adraka abawayhi inda al kibar ahaduhuma aw kilahuma fa lam yadxulil janna ñu nit baa toog bu mu yàgg mu cim cim cim ñëpp ne tekk mu ki may camu mooy koo xam ne fekke na ñaari waajuram nekk mag walla mu fekk kenn ci ñoom ñaar nekk mag te fagguwul ci ñoom ñaar aljanna bala ñoo dem kooku lay kooku lay camu waaw koo xam ne sa yaay fekkante nga ak moom sa papa fekkante nga ak moom dund nga ak ñoom ba ñu màggat walla kenn ka màggat mbaa ka ca des màggat te amoo aljanna ci ñoom ñaar mbokk yi jërë ngeen jëf ak suñu faral te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi toi firiñ fàncal na ko jolof ñaan yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu.